nga nekk ci bopp agence su Senelec fii ci Touba ñu gis seen teewaay fii ci euh, journée de lancement Assainir Touba ndax mën nañoo xam lan mooy teewaayu Senelec fii ci ci bis bi. waaw jërëjëf bi leen sant ba pare di rafetlu toogaay bi di rafetlu aussi initiative bi di jot li si ñëw ci ku tedd ki Sëñ Mountakha Mbacké di ñaan ko mu yàgg fi te ah suñuy toogaay fii ci Senelec je crois que mën nañ ko justifier parce que ku wax assainissement wax drainage eau pluvial te ku wax drainage eau pluvial wax pompage te yaakaar naa ko wax pompage wax électricité donc ñu war fee taxaw ci loolu war fee taxaw aussi pour askan wi parce que ndox ak courant ànduñu te yàlla dafa dogal dañoo bokk nag dëkk donc ñu gën a ñaax askan wi pour ñu gën a fàggandiku ah li nga xam ne nag courant moom fi ñu ko dafa bari sous diverses formes comme wax naa ne ko drainage bi dëkkuwaay ak aussi ku ne nawet rek wax coupure wax aussi li nga xam ne moom mooy gàllankoor yi ci mën am waaw donc moo war a suñ teewaay fii ñu wax ngeen ko léegi képp ku wax assainissement wax courant gis nañ courant ni mu jaxasoo ak ndox léegi euh, Senelec ban taxawaay lay taxawaay lay taxaw ci liggéey bu am solo bi nga xam ne ni fas nañ ko def au niveau de euh, la ville de Touba euh, commune bi di sant monsieur Senghor moo di jiitu nañu wàcce nañu sept points yi ñu identifié woon ne mooy points yi nga xam ne moom mooy inondation yi foofu la gën a bëree foofu wàcce nañ fa ay points yoo xam ne bu sapeur pompier soxlaa ñoom dina mën a dem pomper sans problème donc loolu pare nañ ko war naa toll ci fukki fan. parce que ñoom ils anticipent sur beaucoup de choses euh, maanaam dañuy taxawal fi nga xam ne xëy na pouvoir public ñoom foron taxaw wax dëgg yàlla di def ay jéego yu mat a donc ñun aussi de am nañ ci ndigal moo loo xam ne mën leen bopp nga defal di rafetlu seen taxawaay bu baax di ñaan aussi collaboration bi ak ñoom gën a ratax gën dëgër